asalaamaaleykum mbokk yi teel talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru rabiul awal muy weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëpp fukki ak juróom-ñett ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci talaata ji rafetul talaata ju nekk nag des cee tere tere ak wàccandiku ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanuk bis bi yow sama borom yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma yërëm yaay ngën ji way yërëme yi rabbi xfir warxam wa anta xayru raximin rabbi xfir warxam wa anta xayru raximin xaddiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na kenn ci yéen lekkul mukk ñam wu gën li bàyyi ko ci li mu liggéey ci loxol boppam yonente yàlla daawud alayhi salaam li bàyyi ko ci li mu daan liggéey ci loxol boppam moom la daan lekk xadis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam maa akala axadun taaman qattu xayran min an yakula min amali yaddi wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaana yakulu min amali yaddi rawaahu Buxaari waxtu julli yi suba waxtoon na tàbbi juróomi waxtu yi tegal ñeent fukki simili ak ñeent tisbaar benn waxtu bu tegal fukki simili ak juróom-ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent timis juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñaar gee juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñett loolu mooy waxtu julli yi ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari dina wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dina fenk juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-ñeent di so juróom benni waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin